di nuyu dina jàlle li nga xamante ne mooy dañu bokk ci li nga xamante yàlla jële ko fi tey di ko jàlle làmb di ko jàlle ñëpp na di ko jàlle Sénégal tey ban yi nga am jërëjëf am tiis lool tiis bu metti ci man bi ma déggee événement bi euh, yàlla def nag même jeudi bi passé falaa jógee ak suma xarit ancienne gloire ak suma doomi ndey yi muy si Tafa Thior ñu ñëw ànd faga de Dieng Diouf mii nekk suma wet ñoom Mbartine Ndiouga Dia gis ngeen ko waaw ñu ñëpp ñu àndoon ak Ndongo Bay seeti ko bi ma ko seetee aussi fu mu ko fekk suma rongoñ dafa tuuru lu waral loolu ndax ku xamoon du balees bu njëkk ak ku xam fu mu nekk sa yaram day daw di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko arjana di wax ne du bales ku sincère la ku franc la ku déggu la ku ñeme la te ku julite la lu tax ma wax ne ku julite la léeg-léeg ñu doon def réunion ba waxtu bi jot mu ne xee taaw leen nañu bay wax bi ñu dem julli ji kon nag nga xam ne kooku ku gëm yàlla la te maa ngi ñaan yàlla yàlla xare ko arjana rawatina nag Double amul lu mu deful ci Sénégal amul lu mu deful ci Afrique champion d'Afrique indi na fii ay médailles d'or dem nañu ba Double Less ñu yaakaar ne dina indi médaille d'or championnat du monde ndax xarañam ak fitam ak yéenam ci Sénégal képp ku nekk mbër bu mag Double Less bëri na ak yow am na bés ak yow ñu mel comme Robert Diouf ñu mel comme dem si yàlla euh, Mbaye Guèye ñoom Moussa Diame ak ñeneen ñeneen ñeneen kon ñu ngi ko ñaanal yare xare ko àjjana waaw